mbokk yi jërë ngeen jëf ñu ngi leen di nuyuwaat di leen gërëm bu baax am mbégte teewaat suñu borom ak kattanam di sant yàlla bu baax di nuyu waari si yëpp El Hadj Modou Diouf Abdou Toob Ablaye ak Fallou Gumbala ak waa solution TV yëpp solution info TV ci ngeen ñi seetaan ñu ngi leen di nuyu di leen gërëm bu baax Omar Bun Xattab gi nekk ci kàddu gi 30 minutes chrono ñi ñëw saa su ne di ci ànd ak yéen alxamis june bu 21 jotee. tey jii ñu fas yéenee dellusiwaat te waxtaanee actualité bi actualité bi nag yaatu na yaatu na jëm ci li nomination yi bees yi dinañ ci wax dinañ wax aussi ci wàllu Diouf Bodian ak kàddu yu mu yëkkati woon ne li jëm ci opposition bi opposition milliardaire baaxu ci nguur goo xam ne dafa bëgg liggéey ak visitu Jean-Louis Mélenchon ak yenn ci presse bi xam ne dañuy acharné wu. ci régime bu bees bi te régime bi defagu fi sax ñaari weer ñenn taxaw ci presse bi ne lii du fi am di état de grâce du leen bàyyi ñu liggéey heure bu ñu xëyee ñi ngay teg ay galgal ponk yooyu bu dee xaj na fi ci fanweeri minute dinañ ko fa seeni waxtaanee bi ci jiitu jëm ci nomination yi mu doon ay nomination yu ñu yàgg di xaar ginnaaw ba ne appel à la candidature appel à la candidature boobu ñu doon wax man ànduma ci woon parce que sax waxuñu pos yëpp mais dana ay poste ndaxte dama gis ni li gën a jekk te gën a rafet mooy boo àndeek nit ngeen campagne depuis deux ans ngeen dund épreuve bu yu metti dans les moments ñoom ñu taxaw parce que amoon na benn jamono taxaw jàkkaarloo nguuru Macky Sall yombul woon loolu da des fois bu ma gisee ñenn ñi lappi-lappi yëkkati seen kàddu di wax dama naan fu ñu nekkoon démb maa ngi gis ku mel ne Mamadou Sy Tounkara Walfadjri ma ne xalaat yi mu am yépp te nekkoon conseiller Macky Sall depuis 2018 xalaat yi yépp mu ne am na ko ci réew mi xalaat yi yépp nee na moom fa am ay xalaat yu baax ci réew mi xanaa xalaatu xaleel ko woon Macky Sall moom Mamadou Sy ak ñeneen ñoo xam ne tey jii ne day joxe ay leçons ba ca presse bi leçon yooyu ñu doon joxe lu tax joxuñu kon makisal Sall looloo tax tey jii bu ñu defee yenn nomination yi comme ni mu ko Ablaye wane Damboj Seydina Oumar Touré Habib Sy ay Mbodj lu war la parce que rek ñi doonoo taxoon fan war a taxaw Toussaint Manga Cheikh Oumar Diagne waaw mu ngi noonu di leen félicité pour plusieurs raisons parce que nag doonoo bañoon ca bañukaay ba da ngay dégg waykat bi naan góor ga bañoon ca bañukaay ba xana bañ yomb na mais bañ fa nga war a bañee wax fa nga war a waxee mais xeex fa nga war a xeexee ñii nii mun nga ci boole ay Cheikh Baara Ndiaye seen alal fekkewu ko seen wér gu fekkewu ko mais seen njaboot fekkewu ko xeex bi ku ne ak noo ci doon xeex ak sax ñi ñu xamul ñoo xam ne tey jii xamuñu leen dund nañu loo xam ne ci 2021 ak tey jii jar na ñu récompenser leen jar na ñu fal leen ndaxte nag ki la nekkal ci naaj wi da nga koy nekkal ci kër gi te ki la nekkal ci kër gi da koy nekkal ci naaj bi loolu wolof di wax léegi nag fal pour fal rek taxul woon ñuy wax mais gagner ensemble gouverner ensemble léegi nag ma naari naari wolof nee na naar yaa ngi nii xeex ngeen ba ngeen waree xeex fal ngeen wala falu ngeen ba ngeen waree falu léegi nag mën wax ak man liggéey du benn ni mu ko doon waxee benn journaliste bu mu sa fal ma wax ni sam benn waay wax na ban fal ko waaye dina xam ne mën wax ak mën fa mën liggéey du benn parce que liggéey dalay lay mettre à l'épreuve liggéey da lay xayma liggéey da ngay jub di jubal ak di jubbanti wax nañu ba fal leen nag waaye léegi nag liggéey ci des liggéey bokk na ci bu bi jiitu mooy rek jub Sénégal compétence mosu fee ñàkk Macky Sall fal na fi ku ne mais xam luy jiñ ay nitam mooy jubuñu ay sàcc lañu danoo dëng ñoo gën a dëng sa garabu yoo ñii nag bu leen falee ginnaaw diplôme yu ñu amee jërëjëf mu jur ay polémique ku mu ne ci ñoom lan la dénk da ko matee dàmboj intellectuel la Habib Sy son expérience ak lu mun a apporter Aïda Mbodj expérience am ak lu mën a apporter rawatina ci DER ci wàllu entrepreneuriat loolu doo ko werante nga gis ku mel ne Seydina Omar Touré ci wàllu sécurité ak taxawaay doon un homme d'éthique un homme de valeur un homme qui a bañ fa mu war a bañee tey ji Sénégal bu tollee ci niveau bi Sonko ak Jomaay Falu dafa bokk ci moom ñi ngi ko war a gërëmee duñ fàtte Ndeye Khady Ndiaye parce que moment yooyu bañ jàkkaarlu nguur dafa jafe sa bakkan da ciy xaj mais sa carrière xaj ci mais jiitalul woon carrière am Seydina Oumar Touré mais Sénégal la jiitaloon kon tey ji buñ ko falee fal nañ ko fan ko war a falee léegi nag ñu fas yéenee doxal ñu xam ne biñ leen di fal da leen fal pour Sénégal yépp ñu leen pour ñu def la fi nekkoon rupture lan wax war ñu def politique politicienne waruñu xàmmee ku bokk parti bi ak ku bokkul parti bi mais mais nan xool les compétences nan xool lee compétences ñi xereñ ku mu ne ci ñoom domaine ba la dénk da nga war a fexe ba yokk fu nee na ku yokkul da wàññi fa nga fekkoon bërëb ba la ca doon dëng nga jubbanti ko jéem a développé ko jéem a am ay ambition yoo xam ne tey jii bis boo fa nekkee ba fay jugee ñëpp na gàcce ngaalaama du bokk ak nga nekk ci bërëb du fa jugee ñu naan la yaa sàcc lii wala yaa lubal lii wala yaa def li wala lee loo tax ñi falu bees loolu rek lañ leen ñaan buñ bëggee son dimbali Sonko ak Jomaay nan fexe ba jëg jub jubal ak jubbanti waaye sonk ak Jomaay tamit am fulla ak fayda ju mat sëkk ci ñi ñu fal maanaam feuille de ak yoon wala leen xalal pour ñu war a liggéey bu dee ni mataluñ ko képp kuñ ci fal defoo la nga waroon defal wala compétent woo wala mënoo liggéey parce que mën xeex ak mën liggéey bokkul benn kilifa daan na wax naan ñi ngay àndal pour xeex bokkuñu ak ñi ngay àndal pour di liggéey liggéey beneen affaire liggéey xam-xam ma koy def ay compétence moo koy def compétence moo koy def mi ngi mel ne rek ki taxaw fële naan Omar Gueye fii mu toog mun naa am tegoon fu Omar Gueye toog du fi def dara fa Ablaye toog mun naa am fi Ablaye toog du fa def dara fa Modou toog mun naa am fa tegoon du fa def dara kon wax ak liggéey bokkul. te buñ gisee sonkook ak Jomaay ni ñuy doxalee jamono yi dina dal xel ndaxte ci benn weer liñ fi jot a def ci suuf si def ko ci lii bi tey rek conseil interministériel ci inondation li def ko ci wàllu foncier bi def ko ci wàllu pêche bi def ko ci ay yenn ci réforme yoo xam ne bëgg nañ ko ci wàllu mbay mi bu dee ni ñuy topp seen ginnaaw tegu nañ ci tànk Sonko ak Jomaay réew mi dina jag ndax Sonko ak Jomaay ban faloog tey jii dégguñu leen ci waxe naxa sa dégguñu leen ci waxu bolla puy de déedéet erreur bu nu xëyee mu baax mu bon même ñi leen di critiquer sax ci liggéey la leen di critiquer ña nga nekk ci lan war a nekk dama dégg waa ju ñàkk xam-xam démb dafa jàpp ne dafa am xam-xam bu ñuy wax Mamadou Sy Tounkara dafa jàpp ne xam-xam mais man dama jàpp ne amul xam-xam parce que bu nee jomaay tukki yi muy tukki di ko dem ci réew Afrique yi dafa war a ànd ak ñoo xam ne bu ñu demee day amal njariñ Sénégal tukki bi ku la ni njariñ tukki bi amul njariñ Sénégal Sénégal doon un pays boo xam ne dafa war a am pétrole tey bu nee njiitu réew Sénégal ma nga jëm Nigéria Nigéria doon producteur bu mag nekk un géant africain le grand Nigéria ak liñ seq ak Nigéria ci wàllu diine rawatina ñasen gi ak coopération bu CEDEAO ak siège ba nekk ci Abuja un sénégalais taxaw naan tukki yi dafa amal njariñ Sénégal yaa gisul njariñ li ndax bëggoo ko gis ndax yow sa njariñ rek moo la yitteel Mamadou si Tounkara moom njariñam moo ko yitteel ndaxte fii la dóor Sénégal pour man nag bi gën a rëy ci siècle bi moom la dóor sénégalais yi jàkkaarloog sénégalais yi wax leen lu ko neex na leen non man sa sénégalais yi gëm loo leen ni moom un kenn la koo xam ne mën na soppi lu bari naka de tur la doon ut rek pour fekki Macky Sall tey ji conseil yii muy joxe ma dégg ko muy joxe Tounkara lu tax joxu ko Macky Sall ba mu réussir xam-xamam bii muy jaay fu mu jàkkaarloog ay journal teg ni moom journal ci ko wër xamuñu dara quoi moom moom maanaam démb édition du soir laa koy seetaan on a l'impression que moom rek moo xam moom li muy wax noonu la quoi ñeneen luy wax du noonu te ñiy yóbbu Sénégal Macky Sall ci ñu ñii ci la parce que ay profiteurs ñoo ko waroon ay ñoo xam ne bëgguñu Sénégal seen bopp lañ bëggoon ak seen njaboot tey ay nit ñëw def weer Mamadou Sy Tounkara mi tey jii mu mu munoon a nekk benn Sonko ci réew mi parce que bi muy jug la Sonko di jug en 2017 ñu dem législative Sonko am plus fort reste moom jàllu mais bu jàlloon nekk député ba taxaw assemblée am na ñu ne sénégalais yëpp dinañ ko gëm ba mu mel ab Sonko ci réew mi ndax jaayoon nañu benn profil boo xam ne. mooy rupture bi ñu soxla anti système bi ñu soxla moom jaayee nañu ko naka la moom mooy système foofu laa ci yem kon bu ñu fooyee ndaxte nag nawetu daaw bi ak daaw jëf fu leen fekk néeg yi senn xam nañ leen ku ne li nga fi jëf xam nañ ko mais mënuñu xëy soppali ko doon ay nit yi bees bëgg a doon ay donneur de leçon ba nit ñi xeex di ñafe quatre vingt personnes di dee ñi tëj doomu jàmbur yi dem maa ngi après dinaa ñëw ci Mélenchon bi dinaa ci ñëw parce que bëgguma jaxase sujet yi mais en parenthèse la woon léegi nag ñooñu ñu nommé bees na ñu liggéey def résultat ku ci deful résultat ñu dàq la ñii ñu fal bees amul danoo bokkoon coalition Jomaay amul lakos lan bokkoon amul yeewi lan bokkoon amul kenn Séné faluñu leen pour ngeen nekk fa di tiitaroo parce que sénégalais dafa bëgg daraja sénégalais dafa bëgg ni may directeur sangam déedéet mbir mi du may directeur sangam maa fi liggéey lii la kon fan lañ teg bis weer wi déwén man nag yàkkamti wu ma bu ne Toussaint Manga na def ay résultats Lonase teg ci bu mu am benn luubal bu mu am dara parce que ay Lonase yi Lonase depuis la wan depuis Abdou Aziz Tall merci Ablaye pour la réalisation xoola depuis Abdou Aziz Tall Abdou Aziz Tall bi Abdou Laye Wade ñëwee moom bokk na ci ñoom njëkk a teg ci gestion Lonase gis nañ fi la Wane la Lonase chronique d'un piage organisé Ablaye Wade tëj ko Abdou Latif Coulibaly moo bindoon livre bi li fi mujj jaar ci Lat Diop ba ci Doura Baldé ngallaawaay boo ñëwee yow boo fay jógee parce nit fu mu ne bis dina ñëw mu juge fa. mais Toussaint ak ni ko xamee boo fay jugee na sa ginnaaw na bandang recrutement politique bu mu am buñ ko def yëfi militant. nan ko def ay entreprise yoo xam ne képp kun fa teg bis booy jël parce que nag nit boo ko falee dina jël ay nitam teg ci wetam mais nan lañ jël parce que danoo compétent parce que yow mi jiite mun nga jub mais ñi ngay tànn mun nañ jubadi parce que des fois ni nga mel no des fois doo sa njaboot duñ ko mel de des fois di nga am ci sa biir njaboot ay sarax ñoo xam ne li ma naan sama benn waay bërki démb mun nga ni Sonko ak Jomaay mais ñëpp duñ Sonko ak Jomaay te ñu far dëkk far Pastef wala ñu bokk yeew wala ci coalition bi Diomaye ay sénégalais la na ah. gënuñu nekk sénégalais waa APR yi ak waa kii ah Macky yi de ay sénégalais lan rek jikko yi sénégalais yor moom la yor waaye nit ku ne yaay tàggat ci sa bopp njub ak jubal ak jubbanti teg ci bu la felee nga bañ a fuyu changer numéro téléphone mun nga am numéro de service parce que amoo jotu du xëy di wax téléphone nanga ko doon waxee wala plateau yi nga ciy toog wala fu ne nga dem fa parce que plus que sa personne responsabilité di yéeg mais say sa liberté di wàññeeku adduna noonu la plus que yaa ngi gën a am li mais fii kun fu fal li ngay njëkkut mooy bureau beru beru yow nit ñi yana nekkoon balaa dara mais bureau ngay yor beru pourquoi ngay beru gënoon nit ñi parce que nit ñi yow noo toll nit ñi ñoo la ko def même boo ne may directeur bu dul woon employé doo nekk directeur kon daa am ñu nangoo topp sa ginnaaw pour nga doon li ngay doon du xam-xam du daraja du judd gënoo fi gënoo fee jub suñ borom a ko dogal nit ñu wóolu la tànn la bu la wóoloo nag da ngay mérité confiance bi ñu am ci yow kon ñi ñu fal bees danoo politique ba falu bu nu bàyyi politique politique bonul mais nu nga koy doxalee moo bon parce que xeexu Pastef bi dafa am des militants à la base ay xale yu ndaw yu ci dugg kaso xale yu ndaw yu ci dugg kaso de maa ngi gis Ousmane Sarr ñoom Karim Gueye keneen keneen mais ay nit yu ci bàyyi seen bakkan am ñu ci bàyyi seen alal am ñu ci seen njaboot tas kon boo leen bëggee dimbali président Dame Mbodj na nga oyof woon ku oyof nga dàmboj kon ne ko oyof bu la wooyee nan lay jot bu la lay jot parce que sénégalais yi yéen a nekk ci diggante sénégalais yi ak président parce que président du ku ko woo muñ ko jot parce que sax bu doon ni ku woo président jot ko sax amul sens parce que kilifa dañ koy ñàkk dañ koy ñàkk mais ñun fal bees ñoo dox ci diggante ñoom ak président digga ko bi ñuy yor Macky Sall tey lépp lu ko rey mooy entourage am l'entourage ressemble souvent à l'entouré loolu la ñuy wax kun ci fal nga changer numéro bu lowee du la jotati def sa vitre teintée dem fa nga dëkkoon dëkkatoo fa dem dëkk fi gën a sori sa bureau ngay tànn koy recevoir ak koo dul recevoir am ay xarit yi bees ñun noonu la ñu mel ñun sénégalais ñun dañuy fuuyu fuuyu maanaam day mel ne mosuñoo juddu am jaar-jaar képp ku ci falu ba nekk ci kaw rek day mel na moom léegi moom buur la léegi ñi nekk suuf ay daglan Seydina Omar Touré jamono dafa ñëw sénégalais yépp taxawu la mu metti loolu ñu def ay Copper Express def cagnotte pour yow pour bañ ku la yërëm foo bëgg a dugg liggéey nguuru Macky Sall na déedéet bëggoon nga torox yàlla du reyal kenn noonam yàlla du reyal kenn noonam nan ko xam yàlla nga dee taxul kenn dee yàlla nag dund na di sàkkul ku dul dee mais sàkk na ñu dul torox kon tey jii loo leen doon sénégalais yi la bu leen fàtte sénégalais yi mukk bu leen fàtte mukk les militants de la de Pastef jeunes yi dugg kaso mun naa ci lim ñu dul jeex ñu dul jeex ay junni junni gëm projet bi ba tey jii projet bi nekk au pouvoir mënuñu fal ñëpp ñu tànn ci ñoom parce que pal nag du ku ne ngay fal da ngay am benn njàng mi am benn diplôme bi am benn jaar-jaar bi parce que bu nee col capitaine nu gendarmerie ñu ne moo jiite ASP yi sécurité lu normal la noonu di déglu sénégalais yi parce que aussi li ngeen di xam sénégalais yi ñu leen ko parce que sénégalais yi ñoo nekk à la base ñooy dund ak nit ñi kon déglu bi ngeen di déglu sénégalais yi gël jox leen seen bopp di leen recevoir bu leen woowee téléphone mais aussi bu ñu amee soxla ngeen mën ko faj yàlla li leen di fay ëpp na seen soxla sénégalais da leen lebaloon ëpp na seen soxla taxawu leen les militants à la base parce que nag ku jàpp ni fii rek la mbir yi yam yaa ngi nax sa bopp de bu leen nelaw de parce que da ngeen ko séq ak ñoo xam ne bàyyeeguñu de. Macky Sall gaayam yi bàyyi guñu boo gisee ni internet bi di doxee recruter nañ ay nit recruité ay journalistes créer ay faux profil dugal ci ay nit ñi xeex nguur gi te boo xoolee jamono ñi ngi xeex plateau bu bu leen di dogg daaneel amul plateau bu nangoon toog de mais léegi ñi ngi succédé wu ci plateau yi ministre ak ñenn ñu nu tudd ci ay rapport ñu ngi génn. di préparer seen communication di defaru yéen nag boo leen jàppee da ngeen war a seen bureau léegi noppi bàyyi leen terrain bi ñi ba daxal ma daal di gundaandaat ak di noos bis boo leen ko jàppee noonu di ngeen am mbetteel parce que dans le domaine de la communication parce que ki gañ la bataille de la communication gañ la guerre adduna lépp communication la parce que communication moo ko fal waaye communication moo ko téye au pouvoir te communication boobu bokk na ci ñi doon nekk dans les plateaux di expliquer waaw bokk na ci les jeunes la bu ñu fàtte jeunes yi de ñoo porte le projet au pouvoir te projet bi bu naree yàgg jeunes yi ñoo koy téye au pouvoir kon yéen ministre yéen député yéen maire yéen keneen ak keneen dee leen gëstu ndaw yi di taxaw seen i soxla di leen déglu seen conseil di leen bàyyi xel mais bis bu jeune patriote di centré ni ñi falu nan wan ñu ginnaaw la nature à horreur du vide loolu nañ ci bàyyi xel. mu doon lu mu doon yóbbante rek ñi ñu nommé bees parce que ñun ay sénégalais lan man njëkkuma ci presse tey bi Pape Gorgui Ndong di falu fi la ma fekk j ay ñeneen ak ñeneen falu ay jeunes lan woon comme ñun modeste lii nii mais bi bari na ci am ñoo xam ne kenn gisatu leen sori ñëpp daw ñëpp te sénégalais am nañ fulla fulla goo xam ne bis boo faloo aju ci kaw bu ñu dajaloo fekk la ci kaw wàccee la maa la loolu kon tey jii ba xeex jotee xeexal na leen kon bu leen nekk ci kaw rek jàpp ne léegi yéen a ngi ci donkaasi gi te waykat boo waxoon ne nen donkaasi gi njowaanu galo la <laughs> njowaanu golo la ah, mu ngi noonu léegi nag li ma doon wax sànq na defaru nan ay kàddu jib fii di Waly Diouf Bodian ne ay opposant milliardaire bis buñ ko amee wala ñu bàyyi leen ñu opposé wu mun na jur ci réew mi nguur gi bañ a liggéey mais nguur gi bañ a liggéey walla Diouf ñu bari waxam yu dégg nañ ko waaye bun fàttali ni du journaliste moo ko posé question soirée de gala la nekk un militant posé la question à chaud sur le feu de l'action mu waxee noonu noonu laag du noonu nit ki ku ne mën na ko interpréter ni mu ko neexee teg ci mu ne avec vingt cinq députés maanaam ñu am une minorité à l'Assemblée nationale loolu taxul projet bi mën a dérouler te wax na dëgg parce que réforme yi ñuy xaar pour nguur gi mën a tegu ci axe yi tegu ci raay bi mën a doxal faw nag ñu am doole ci assemblée nationale doole jooj nag li koy maye mooy ñu am majorité à l'assemblée parce que ñii ma gis ci plateau yi di waa Benno ak waa APR yi parewuñu pour jàppale nguuru Macky Sall ci tarfatal ay ni parewuñu lépp luñ leen mën a gàllankooree lépp luñ mën a xajamalee seen nguur lépp lu luñ mën a def dina ko def te loolu lépp liñ ci yaakaar mooy xaalis bi ñu sàcc du ñëpp sàcc de mais xaalis bi ñu yor waali leen bëli ba parce que boo gisee tey yenn ci presse bi ni ñuy doxalee ak yenn ci réseaux sociaux ak yenn ci taxawaay yi ak manipulation bi am dans les réseaux mais da xam ne xaalis génn foofu la Wally di waxee ñooñu nag ay rapport parce que waxi Wally gi baax na de parce que comme le ministre de la justice yëngu na démb ci rapport Covid 19 bi ci Covid bi junni milliards yu ñu doon wax ak yooyu baax na ci yëngal tuuti parce que nag ñu xam ne man dama leen di gis ci télé yi yenn saay ñu xam ne nag dañ fay def lu na weng réew mi tey bu dee mënuñu wàññi dund mais ala gin sàcc ci la. réew mi tey bu jafee bari ay bor ñu amel ko ay paysan amel ko le secteur privé le patronat mais ana alal jooju lépp mun nga ko leb di investir pour que li ngay investir mën a jur dara nga fay bor mais bu dee da ngay leb di yàq wala da ngay leb di def ci sa poos ci turu réew mi mais tey jii bu ma Sonko ak Jomaay ñoo yey fekk fi bor yu mënta fay ci weer mënoo leen fay bor yi jëm leen ci li ngeen mën loolu mënu ngeen bàyyi ko bu doon ni Sonko ak Jomaay bor yi boo boobaa ñu wax ak ñoom mais liñ fiy wax yëpp ci ay bor Macky Sall ne leen état continuité la mais continuité ci lan ci lu baax ku dem ba yegg di bàyyi ay décret nomination naan ay député yoo xam ministre yoo xam dina war a continuer di leen fay weer ci ñoo xam ne tey jii dañ leen nommé woon gome leen ñu ne noonu dañ def décret Macky Sall def loolu jamaa ñëw dindi ko Waly Diouf foofu lay waxee maanaam du nangu nit ay rapport tudd ko mu sàcc alalu réew mi mu war a dem ci justice leeral dematul ci justice leeral mu toog ci plateau yi wala mu yebal ay nitam di menacer nguur gi ak di leen tëkku te jamono ñoom dañ leen di menacer ak di leen tëkku di leen tëkku ci ñoo xam ne danoo waroon a noppi wala heure bi ñu ne woon ñu ngi dem di doxantu ci kanamu procureur di dem di dëkk te li booy wax dëgg la procureur dañ ko fa war a jëlee. parce que lépp li mu doon def ñoo ci àndoon am Karim Diop ak Nguuru Macky noo fi ku ne def fi lu ne tuumaal ku ne maa ngi fàttaliku bi muy def victime du net ci mbiri Ousmane Sonko fii ci leen fekk kooku mënul continuer da àndoon ak ñoom tey jii mu war a saytu seen i mbir na ko fa jëlee teg fa beneen procureur aussi c'est vrai naan nag waali warul wax wax ji ku ne ak ni jàngatee ndax man am naa sama jàngat te te monopole warul am ci wax du ma ne waale lu mu waxee noonu la wala dara mais ku ne ak noo ko déggee mais bi ñuy tëj ci Waly Diouf Bodiang Waly Diouf Bodiang lu mu def waal loo def yow yow xamoo sax loo def bi lay tëj fii di la takkal bracelet nga nekk DG adjoint bu DG de nekk kilifa sécurité Sonko rek nga yor jege Ousmane Sonko ba ñëpp xam ne yow Ousmane Waly dama naan du Pastef Sonko la Waly kenn xamu ko sax politiquement moom Sonko rek li xale naan Sonko rek lay topp mais ko rek la toppoon ñun ko kër dem ci kaso bi pare takkal ko ab jéng presque at ci kilifa gu doy na moom boobu ñi ñi tappale fii di wax naan li mu wax war ko wax est-ce que ñoom waxoon nañ ci jàpp Waly Diouf Bodiang est te li mu tegoon Waly Diouf bañaa est-ce que mét lu woon nañ ko ñoom ñëpp fi leen nekkoon fekk ko deewuñu woon feebaruñu woon. doo ci mës a dégg ko ku wax ba tudd ko ci kilifa gu toll na moom xañ ko njabootam jëng ko du moom donc lu ne ñu dund ko fi est-ce que métti lu woon nañ ko ñiy critiquer Waly Diouf Bodiang journaux yi def à la une ci moom est-ce que biñ ko jàppe tekku dëgg est-ce que bañ def nañ à la une ne lii du yoon defuñu ko léegi pour rien du tout ñu mën a jàpp Waly Diouf Bodiang dóor ko ci kaso bi pour rien takkal ko li tey jii mu wax xalaatam ci benn mbir ci ñoo xam ne danoo sàcc alal réew mi ñu ne ko non waroo ko fi woon waxee naan les propos dangereux da ngay gis ni dal propos dangereux di n'importe quoi lii xaar ñu koon wa ce que Wally a dit Wally luñ ko tegul fii amul pourtant daawu ko dégg amoon na ngoroom am diineem toog ci kon tey ji ku wax lii wax la ca des ku ne ànduma ci lii est-ce que àndoon nga ci ban koy takkal bracelet électronique maanaam dafa am ñoo xam ne depuis que régime bi ne fi lépp loo xam ne Sonko ak Jomaay da koy def rek dañ ne da il faut ñu indi ci polinique ak werante nuñ ci mënee xëpp suuf def ko léegi nag xam nga Sonko ak Jomaay la lañ warul nangu ma wax leen ko tey. mooy ku leen napp ak di leen jëm a chantage parce que ñenn ci presse bi lan lañ leen dundee ay convention ay publicité ay partenariat yoo xam ne dañ ko amoon a nguur gi weesu loolu amatul te bëgg nañ mu amaat xam ne dafa am maison de presse ak maison de pression maison de presse liggéey lay def mais maison de pression ci boppam lay nekk maanaam li mu bëgg boo ko deful mu utiliser ay journalistes am di yàq sa der ak di la yàqal am na ñoo xam noonu la ñuy doxalee Sonko ak Jomaay lépp luñ fi mën a def même bu baaxoon dinañ ko dingat ndax pression la ñuy def ci ñoom di ko def ci yenn ci ministres yi patron de presse ni mu amee noonu la amee patron de pression yoo xam ne ci ay pression la ñuy bëgg di dox di napp gars yi ne xam luy wax noo gars yi na leen attaqué na leen song ngemb yenn ci seen gars yi nii yenn ci seen gars yi nekk si seen média yi la ñuy ngemb na leen doo leen dóor kii bu dóoree ci tànk yi tey suba kii dóor ci ndigg li kii dóor ci lii kii dóor ci lii bu yàggee ñoom dinañ séddee parce que koo ci gis amoon na relation ak carnet d'adresse boo xam ne lu mu soxla parce que aussi bari nañ ñi nekk ci presse bi mais post ak responsabilité yi nu am dans les rédaction wala kii mais dañ koy utiliser pour di defar seen biir mooy je suis rédacteur je directeur des programmes je suis cela ou ceci reporter yi ñu ngi def seen liggéey de parce que reporter yi normalement la ñuy def seen liggéey mais ñu yor poste yi ci loolu la ñuy seen bopp am na du ñëpp nag mais am na ñoo xam ci la ñuy seen bopp léegi nag bu dee nguur gi dafa ñëw tëju ci ñoom te nguur gi ubbeeku ci ñoom ñu mën di woote di lijjanti seen bopp parce que dégg nañ Aïssatou Diop Fall aussi li mu wax ci ci nu mu tudd kii ba ministre des finance bi fi nekkoon Cheikh Ba nu mu doon dundee ak moom ba correct bindu ko Aïssatou ko wax ci kaw. mais am na ña du ñàkk ni am na ñu ko doon def ci suuf te ñoom waxuñu ko Aysatu moo ko wax ci kaw parce que c'est Aysatu mais est-ce que amuñu ko doon def ci suuf di ko nëbb on ne pas léegi nag buntu yooyu tëju convention yi signé tuñ ko relation yi ñu amoon léegi bëgg nañ ay relation yu bees ñu ne nañ utiliser méthode yi yàgg ya mooy moyen de pression seen xalima ak seen lamine moyen de pression la pour que gars yi cédé da ngay dóor ci benn ministre wala nga dóor ci kii ñu woo la recevoir waxtaan ak yow nuyoo yow benn relation créer ay partenariat cela nga jël sa tëmbal galaas mu sedd guy ah yaa ngi gis Sonko Diomaye bañ leen te yéen xam naa ne ay guerrier ngeen yéen amul yéen natt nattu boo leen mën a dundaat nattu bu bu lii lay doon bu sedd dugg ngeen kaso saaga nañ leen yàq nañ seen njaboot lépp lu nit di dun ci métti dun ngeen ko bu dul dee. lan ngeen di ragalati nit loolu tax rapport yi ñuy wax taxaw leen ci rapport yi ji nga daam lu ci am rapport yi nii laay foofu rek laay tëjee dafa ji nga jomaay mi dafa war a gaaw ci rapport yi xamul ndax man dégg naa nit mu ni ma ji nga rapport yi nii ci kanam tuuti bu mbir yéexee danaan moom ak Macky Sall danoo diloon pour moom mu nekk président pour que bu faloo du topp gars yi am am na ñu jàpp ni ñoom dañuy fuural rek ñoom yi am nañu jàpp ne dañuy fuural rek mais rapport yi duñ ko topp ba mu sës parce que lu ñu waxtaanee la ak Macky Sall te bu mbir yéexee di nga dégg ci kanam tuuti li may wax nii dama ci am source yu leer di nga dégg ci kanam tuuti ay nit génn naan diw ak diw danoo dégg woon ci lii moo tax lii kenn topp ko mu sës kenn du ci tëj kenn kenn du ci jàpp kenn wala boog pont yi nekk ci kaw punkal yi ngonk yi kenn du leen jàpp loolu nañ ci bàyyi xel loolu tax lii topp ko ba mu leer ku def ñu xam ku deful ñu xam. jégalu ñëpp nag euh, di baalu àq ñëpp di nuyu gërëm Ablaye ab euh, Abdou topp euh, ak El moo du Diouf ak Fallou di jégalu ñëpp di baalu àq ñëpp Omar bun Xataab Gueye moo nekkoon ci kàddu gi di ñaanal ñëpp jàmm ba beneen yoon incha allah.